Thank you. maa ngi nuyu ñëpp di ko jaaree ci yow mi bunt bi di nuyu waa daayira bi waa Sengoña yëpp ginnaaw di nuyu waa Tasawu di si baan yëpp ñëpp ñëpp di leen gën a feddali sa taxawaay ci ñoom ndax saa moo la jotee doo ma wax sa tawati bopp tawati taalibe yi ngay wax ak sant seenu cant kon ma itam maa ngi leen di santal sëriñ bi ci seeni jëf di leen sant sama bopp di am ak rafet njort lool ci yéen ak yërmande ju yaatu di ñaan ci barki Serigne Touba ndax li fi li Serigne Fallou mii li ma waroon wax lépp wax na ko ak ñi ko jiitu li ci des moom mooy sant leen ak yëgal leen ne li ngeen def lépp gis naa ko xam naa ne Serigne Touba rekk nekk ci yéen ndax as jëmb su lot nga fab sa yitte yëpp def ko ci moom la nga mën ak la nga mënul lépp nga defal ko ko moom ak cant rek lay war a mën a am ak ak ñaan di sant jigéen ñi bu baax ci sa tur ak jot li nga ma jot li ci ñoom yëpp di ñaan ci barkib sëriñ Falilu sama yaakaar yi tey ak ëllëg ndax ab taalu bi ku ne ko joxeel sa bopp ma nangul la ko kooku amoo payam te moom wax loolu man fa suma yéene doon dara lu lu murit bëgguma leneen bëgguma lenn lu du taalibe yi kenn duma dégg ci kanam buur xawma sax gouvernement Sénégal luñ doon ak lu ñu yor man sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek la boo ma ñor moom lay dund te ci lay dee itam te fas ko yéene ànd ak yéen ñi nga xam ne moom rek leen ñor moo leen yitteel te kitaabu naa ci yàlla ne nii ngeen ma jàppee sëriñ Fallou gis na ko te man miit yëg naa ko te xam naa ne moo tax ngeen di ma ngeen di ma ndax daal xay na yéen a xam lu ngeen gis ci man waaye man day xam naa ne duma dara man ku xeebu laa ku tuuti ci sëriñ bi waaye sama pas-pas ci sëriñ Fallou moom maa ngi ñaan mu yokk lool waaye xam naa ne am naa ko ci moom ku ma doy la te yëg naa ne lu ma ko defloo ci doomu aadama yi mu defal ma ko moo tax su may ñëw fii damay taxaw fa moom ak waa kër sëñ Tuubaa ko wër xamal leen ne maa ngi dem ci ña yaakaar sëriñ tubaa te def ma seen bunt ci ñoom lu ñu ma wax ci sama nopp bii na faju ku ma ca xoolit ci bëtu yërmande bi nga xam ne ci yéen laa ko jël di ko yóbbu foofa na suñ borom wàcce ci moom tawfiq moo tax ma xam ne li ngeen di def fi ngeen koy teg fu wér la te at mu ne ak dolli ko day dana ci am murit nag képp moo sañ wax loo xam ne lii ñëwagul ci pas-pasam te suñu borom du dogal ko nam mu ko war na ko war a dogale te samay bokk laa àndal yoo xam ni maa ngi ñoom bokk sëriñ Fallou ak sëriñ Touba ñuy ñëw fi te xam teraanga juween ñuy teral teñ xaj ci rek moo tax ñu di fi ñëw kon cant gi ma sant sama lam yi mënu ko tudd waaye sama yaqin moom am na ci ne li ci aj lépp dana saafaroo li ngeen ci aj lépp dana saafara waxoon naa leen fi ne ku bokk ci daayira bi maa man maa man ci dooley Serigne Fallilou maa lay garanti da delluwaat Sénégal te giñ naa ne loolu dara du ko dindi ndax pas-pas ci am ci Serigne Fallou du man du man Serigne Fallou la te li ngeen may jox taxul ma wax ko damaa xam seen ak cofeel ci sëriñ bi na sëriñ bi faj na aajo bu yàgg lottuma ci dara waaye lii ngeen def nag dafa rëy ci man te man amuma lu dul sëriñ bi li ma leen wax léegi du ma taxaw ci benn bunt ñu naan ma day day réunion day def leneen déedéet man sëñ bi rek sëñ bi rek laay réunion kenn du ma dégg fenn bëgguma duma ma dama ngir dara sëriñ Tuubaa laay tàllal samay loxo te lu ma bëgg lépp mi ma koy defal te ci yéen ñii lay jóge kon fokk seen aajo fajo ni sama aajo di fajoo jërë ngeen jëf sama xol sedd na na seen xel dal te bu ñuy ñaan la ma daa wax rek day mel na jigéen ju tiim ab soqam di ko soq mënul fepp dugub bu ne mu jël ci kuuram dóoru ko ca day dëbb ci digg ba rek lu waay soxla rek dog bi moom mokk na lu waay soxla rek tibb joxe rek ca des lu waay soxla rek na ko wax mustayil day am nag loolu kii ñaan dafa am loo xam ne dafa jomb ndax dañoo wax ne yàlla mën na lu ne waaye du rey gëléem gëléem jaaxadal ko ab ñaankat it nag fa nga toll ngay ñaane bu lay ñaanal waaye denc benn million bëgg ay milliards ci tàng-tàng bi dafa xaw a jafe <laughs> da di da ngeen di seet li nga xam ne mooy yitte ji nga xam ne moo taxaw te nga jàpp ne lu lijjantiku bu ñu ñaanee dana lijjantiku lijjan yitte ji nga xam ne jàpp nga ne mënut a lijjantiku te nga bëgg ko mun na taxaw te mu sa moom suñu ñaan sa pas-pas def ko ci da ko am na nga ko bëggee te incha allahu dañ taxawaat fii leeral ko bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ngeen na lool waaye aj leen ci ay fas leen ci lool lu ñu am jox leen waaye yéen da ngeen leen nopaa doy ku fi nekk di xam xabal ba ñàkk yaa xam